Joko c'est l'application bi leen di yombalal ngeen jëlee seen xaalis Orange Money moo leen di may seen émission Money du bees sàcc ci seen facture jënd crédit ci opérateur bu leen neex moo leen di may seen sketch koobu kaw farba décentralisé naa ko waaw <laughs> comme li nga waxoon rek xam nga nga ne moo weer bii moom noo mun a def na nga dem woote ji si sa aaw waaw <laughs> <laughs> dëgg yàlla am naa nag sama benn xarit bu ñu wax njaay rijax waaw njaay rijax wax dëgg yàlla moom it dafa la bëgg président billaay waaw di ngay loolu ko gàlle farba i nanga def soxna si nu ma daa nu ma day tappe alhamdulillah masha allah yetterande fewi kono basi voilà in an kam hoto le lion de posé woni farba annani le fidèle compagnon du président hana yayi jabaram ah machallah alhamdulillah jewo gabɗo jewo tuuɗo pewɗo mo ñala bona rewani way jiguen nila men awa buura këram hoto woni noon monsieur l'honorable député le maire de zalim wax dëgg yàlla moom nee na dafa la bugg ba nga xam ne xamul sax sago ci lu muy def nii wa waa wax dëgg yàlla na waaw waaw waaw léegi nag président waaw président njaay njaay moom xam nga dafa wat ndeel leel comme boo gisee comme Kocc Barma ah. waaye nag yàlla dafa def borom xam-xam la nit ku am xam-xam si yow la waaw waaw waaw waaw waaw président président waaw après mu wax ak moom. su ko defee moom mun na la xoolal ay sarax yoo war a jox wala yooyu noonu dégg nga. waaw waaw waaw waaw. waaw waaw ok waaw jërëjëf. waaw. <laughs> waaw waaw d' accord d' eh, <laughs> accord d' accord d' accord d' président. président bu may wax ak moom ngay wax di dugg waaw comprendre. wax naa waaw loolu bëgg yow man maa ngi toog fii ba ba léegi nga jàpp ak président bi asoo ma président. ba léegi lan nga doon wax sarak bi nga ma doon wax lan ban sarak la. man dimb damaa tëdd. waaw ma tëdd ba ci biir nelaw bi ma gis sa photo gis nga ba ma gisee sa photo mu def ma saaru sarax sarax bi génn sama kanam nekk set set set set muus. set set mbuus lan. muus muus muus ñeew ñeew. muus ñeew waaw kay muus set. set génn na ci guddi gi dem ma gis ko nii nga sarax ko jigéen. yaay dangaa lekk poobar wala lu la dal yow. waaye ku woor na may lekkee poobar. dangay bugg a dee wala lan ay muus nan lañ koy jël di ko sarax léegi bu ma saraxee muus pour lan la lool. yow yaay jël place président. Ah! président moo la jox place la dama ma lay waxal de wala nag bul dugg si yooyu de man la ma saraxe muus pour ma jël place président loolu munul nekk bul dugg si yooyu sax. loolu moo baax ci yow. xalaatuma jël place am waaye yow man sama bakkan bu tegewoon bakkan président taxaw ma joxe sama bakkan. bàyyi bakkan président. pour lan. anam. mi ngi fi. ah kon bisimilah. <laughs> yegg si. waaw ah, kon mbaa ni ma bisimilah mbaa ni ma est-ce que awa pour kër. Ah, ah. loolu laa doon député. la ilaha illallah le lion de Bosse ya. dono baamu dono baamu dafa jana baamu saga. o de farba. i farba tanu farba. dono baamu dono baamu dafa jana baamu saga. gong gong ah. hammani dimmowo leydi goɗimo leydi bamamo dimmatake baban sagataɓe yuman ñagotoɓe so laddu nde datama gay wulla jeeri nane wala gueji baban maji gueji wota ko tarata ko taari gueji naɗe joni gueji yoɗo gara jeeɓe noon suudu kanke ɗum sammitaki jaaɓe ɗo aɗa siftoromi aɗa nande me gorko o oɗo woni monsieur le maire hono ganduɗa mamadou rasi rasi kam goni gengole manan ali malik bikko baram maram cew mo dula ali maram sogo ali maram jokkol ali maram lewtan ali maram sogo laami suymo haran laami mboyo jokkol laami fona lewtan laami caggal ilimano suymo ilimane jataro ilimano tiwawon ilimane ɓuuri kubbana mali sidawol buka lamdian hamme temba ali hooli kal wasamrama jamsi tigui samsidi mbara samsidi jam hamme misi jam habi balla makko matira ali maram iɗo jokko cali mi wi pulare wi humande nayeje kay neɗɗo kadi wiyata ko yiiɗa sukara kono sukara welata wona gonga ka jontaɗo kadi ka dimo ka karisir ka joom saha mi wiɓe tan ɓe gaare jeeɓe suuru kanƴe ɗo eh, sammitaaɗogay wula jeeri nani walo geeji baman maji geeji duwata ko tarata ko tarde geeji ñamme nayi kiidama ko ham ham juddam don gewel juddam ham kinga xam ne komu don machallah o ko hamadi hamadi ngay wula jeeri nani walo geeji baman maji duwata ko tarata ko tarde hey yiɗañlay no fam gaare jeeɓe suuru kanƴe ɗo sammitaki jaaɓe kon so beyi a towr ko nayi jiyaka donc so hoodere noon manama towr ko baade cocci hay ndungu babal damminare gueji babal maji gueji duwata ko tarata ko tarde gueji ñalla naani duuɗe gueji yoolo ko an laaɓi teelen noon aha jeɗaa mom ka hammadi momo gueji kennalla gueji gueji gueji a joxta haysa allah nandi ka hammadi kadi hammadi dimbowo leydi goɗɗum leydi bamo a baban saga taɓe yumani ñaagotoɓe eɓe mbimo noon ka dokka jooɗi mo hulani basal ɗum ɗo a tow ɗum a wona ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin kadi ka lamɗo e yo mo dago ciromi koye dago momo gedde momo nekk ci biir nan nan kaw yaa moom géej géej yaa moom jëni kaw di kaw di wiide rek di wiide di wiide boppam rek di ko jox waaj yow nag gis nga njaay dangaa doy lu xanaa xamoon ni kaaw kii géwalu juddoom la waaye yow géwélu judd ba waa ji day wiide waa ji mu mu jeexal mu dem tox weltiim min ɓuuri weltade machallah ko worɗaɓe yewnimama noon mi weltiima allah nani min ɓuuri yewnude weltiima gawla ɓuuri weltade kadi weltiima gawlaɓa ɗiɗo piyeji ɗiɗo mbaɗa wowɗum hebde ma noon wallahi ko peeji kumba tubaka wallahi ko oya wonde jaam ko wone jaam kala jarama hamadi gon woni ana kadi hamadi kadi dimbo leydi goɗɗum leydi bammo dimbata ke baban sagataɓe yumana ñagotoɓe so ñoom tàmm nañ ko de seen géwalu juddu yi nii la def yow bàyyi ko mu vidé ko bu ko vidé kaaw jeexlewugul dara yow li nga war a am di nga ko am dalal la sa xel mi. kii day jeexal. gis nga kaaw ni muy joxe waaj naan ko nii. di di di di di di man man man ko dugg soirée. mais wii dañu yaa dañu ma dañu ko xaaju mu ansa dañu hami dañar gonga kono aɗa jampasi wola aɗa walla miskineɓe a walli kala ganduɗa mo ganduɗa fof aɗa walla ɗum machallah kadi ka moƴo ka dimo ka kalisi Et Dieu n'a pas dit que je ferai, il a dit que je fais. Son objectivité, les spécialités divines. Il faut accepter, c'est la décision de Dieu. du ma koo bi mbir tout ce qui se console bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément allah nani ka hammadi jarama farba bisimilla mbaɗi ba alhamdoulillah bisimilla yettere allah fewi machallah iɗo biyeje mbaɗa wuuri mi hebde ma machallah bisimilla bisimilla eskima bisimilla an ah, ah. jeeyi foof gongo eyyi eh, mi weltima weltimino feewi ko mine ma guila e dakar min guila mbiɗama ka kumowo ɗo e corte ganduɗa thies mbimi torma ɗum yo mum daga doy lowol loolu dongoma metti se mbir yow xamante nga kaw waaw kaw dina lekk dara bàyyi la mu ko waaw kon donc doo xaar bàyyi ko mu vidé bu vidé dina desal xanaa du vidé batterie yam yëpp jox ko dina ah. desal dalal ànd ak sëñ dal mu dalal la lan la xaaral ma dugg ci biir sax si xale yi. waa ji de laa koy xaar kii bu naree génn fii man moom damay dee rek kii fii laa koy xaar. jaaraam. ana ne ni wayat noonu. wante ko noonu. mi weltiima miine maa gilin Dakar. wallahi yàlla. guilin dakar minima gongo a woppani a mi woppanama a homo dañat ma woppu nangi tan mhm. nangi tan gongo hakkude ko allah waɗi ko allah waɗi ɗum te allah waɗi ɗum mhm. gongo an ka gawlam gongo gawlo ma tigi mo mbaɗɗa kadi ko gawlo wallahi wallahi wallahi minima mhm. ha amérique wallahi minima ha amérique ha las vegas atlanta colombus ohio a jarama farminode président gongo farminode président farminode président Congo. allo président. bu yeboo nga encaissé li nga encaissé te fii de boo fi génnee par kii par xooxoo yow de du jooy yal na yal naa de di nga jooy.